asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi suivre Lutte TV point com tey nag ñu ngi fii Thiès fan ci dëkk Baye Fall yi certificat Modou Anta ngeen xam ko le grand champion bu mu war a bëree ak Baye Mandione le 3 fii ca Thiès tey nag moo tax waa Lutte TV Babacar ak ak Pape Bouba déplacé wu ñëw fekk si ko fii fas yéene seex ak moom waxtaan Modou Anta ñu ngi lay nuyu di la ziar. wooy ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a a baax a baax. Modou Anta ci làmb parce que Modou Anta ci làmb Modou lu ko dugal ci làmb. waaw bala ñuy wax dara ñu sant yàlla rek julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ maam Salimu sëriñ Cheikh Ngounda Fall eh, di nuyu waat Sénégal xam nga rawatina waa Thiès surtout mel na Fall gi nga xam te ne fi laa juddoo fi laa dëkk waaw moo daan moom li ko dugal ci la am mën naa du leen lu dul xamaat waaw suñu borom dogal ko na nekkoon benn booy rek di jàng école di romb ay grand am xama di bëre. saa yu wàccee di jaar ci ñoom xama ci noonu la tàmbali di ko foontu ci mbedd meeg xam nga waa ba suñu boroom dogal tey mu agsi fii nii mu agsi daal. école bi nga tudd jàng nga ban classe. man jàng naa ba CM2. Hmm. <laughs> fi ñëpp bàyyee. <laughs> seen relation nan la demee bombar yi jàmm ak salaam relation bu nice xam mu nekk grand bu sérieux grand bu baax saa yu may préparé combat saa yu ma ko soxla heure bu mu mën di doon billaahi wallaahi talaay su ma nee ko jugal mu jóg. billaahi mu ngay jàppale ci côté bare bare bari lépp mu mag di taxawoo rek rek moom mu koy taxawoo mënuma koo fay maa ngi koy ñaanal suñu borom leeral yoonam bu baax a baax a baax ñooñ daal laa xamante ni moom banaa leen fi ba ci combat ba ci combat bi ngeen bi ngay jël ni mu ngi ci liggéey ak yow non déggoo li ma la wax chaque jour maa ngi liggéey ak Bombardier waaw ñu ngi liggéey bu baax moom daal laafi fi ak guy gi ak tonnerre hmm. ñoom ñett ñoom daal laa fi waaw waaw non waa Thiès Thiès sama raka fi <laughs> mais guy gi moom lu tax guy gi. non guy gi ñoo bokku dëkk. waaw Canaba ak Thiès benn la te waaw am na relation yoo xamante ni xam nga moo ëpp doole xaalis. tonnerre. non tonnerre nit ku baax la. Hmm. tonnerre nit ku baax la barki yonent yàlla Mouhamed nit ku baax la nit ku am colère la. bu baax sama gain la. maa ngi koy ñaanal sunu borom leeral yoonam bu baax a baax a baax a baax. vraiment waaw suñu borom tegil ko nattu yëpp mbër jàppal rek gëm dina baax yàlla ku mu bëgg rek lay teg nattu te loo gis lu ne rek daa am ab boo ab bi jotee day jeex li nekk sa kanam yàlla na ko suñu borom leeral nit ku baax la barke yonent bi. Mhm. léegi mu doon tamit bëggoon na xam relation ak mbëri Thiès yi man nañ limbi ku mel ne ambulance yeneen gars yi bëri nañ quoi. waaw ñi fi nekk nii moom instant yi di compétir presque ñëpp samay rakk lan jaam ak salaam rek laa seq ak ñoom. Matar maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam am di na koy la même chose ñoom ñëpp sumay rakkalan daal maa ngi fii ku nangu daal ma doon sa mag ma doon sa mag ku nangu ma doon sa moroom it ma doon sa moroom man suma life noonu laa koy dundee noo ma jàppee rek noonu laa lay jàppee bu yóbboo ñu bokk ndey ak baay ak bu yóbboo ñu bokk leneen laa yemale man li ma gëm mooy nit ki foo ma toll rek ma tol la foofu man loolu laa gëm loolu laay dund noon laay doxee mbër moo xam ne moom Sénégal lépp xam nañ jikkoom moom du may kenn dara moom xeex ak bëre moom day door waaw. waaw pànk waaw parce que dañ ni muru daa pànk xam na waa Leewtoo juumuñu moom parce que tax ñu tànnal la baay ma njoon moom juumuñu. man ñaanu ñaanuma ko dara dara ñaanuma ko parce que ndaw laa. mu du bàyyi ma njoon ngay waxal de. déggoo li ma leex dama ne la ñaanuma ko dara ndax xale bu ndaw laa ndam nag yàlla moo ko yor maa ngi ñaan yàlla mi am ndam yàlla na ma sunu borom may ndam ci kaw Baye Mandione mais lépp lu ma waroon ci combat bi maa ngi ci ak suma encadrement sumay staff sumay mbokk sumay xarit sumay rak ñëpp lépp lu war ci bis bi rek ñu ngi koy def pour sunu borom mee ñu ndam yàlla nag moo ndam ñu ko koy ñaan mu nekk ndam lu ñu jik mais Baye Mandione xam nga ko bu baax yow. xam naa ko parce que seetaan naa ko ci laam moo njëkk a bëre seetaan naa ko ay kombaam seetaan naa combat ak Mbaye Diouf seetaan naa combat ak Boy Kéré seetaan naa waaw combat am yëpp yëpp ci bëri seetaan naa ko waaw waaw. ci moom ci wàllu mbër. daanaan la champion la parce que am na fi tàkkusaan gu ne mbër kaamil la waaye nag garab ci kaw lay fekkante loolu la doon ñaan. mais fekkante ci kaw garab est-ce que dina tax garab yi am bokk ay jikko. non bokkuñu ay jikko parce que gars yi wax nañ ko waaye en tout cas le am solo daal mooy ñu préparé combat bi li ci des bareetul yàlla mi am ndam daal yàlla nañ suñu borom bi defal ndam ci barke Serigne. parce que garab si kaw lay fekkante xam nga garabu papaay ak garabu si dem moom ku ne xam ne bokkuñu jikko moom. waaw waaye garab gii nii garabu kel la. kel kel de daan na Lamine daa mel ne xam nañ ko. xam nga kell waaw noonu la demee mag ñi dañ ci daan defar yet yu dëgër buñ la ko dóoree rek moom yetu kel moom ku ne dégg na ko waaw yet yi gën a dëgër ci yet yi yetu lan la <laughs> yetu la kel kon ci yaana garab gi nag garabu kel la ah. waaw mais ah ki nga ko seqal de xaw ma bàyyi de xaw ma kel xaw ma bàyyi de moom liñ naan ëllëri gumbal daa mel ni xàmmewul janj ak joor de ah, waaw baax na bu kel dina reculer waat de kel de moom um, e, ëllëru gumba ak ëllëru silmaxaajam ku ci dal di nga reculer waat hmm. billaahi walaahi nag bàyyi parce que bàyyi ma ñu dama gis ay kombaam day xeex day bëri te foo ne da la fay fekk moom am làmbam moom amul ay dellu ginnaaw moom day bax ba day waat bu delloon bu moom maanaam dellu gi ginnaaw la xalaatul ci làmb. non déggoo li ma la wax sañ-sañ la borom fit la mais loolu lañ doon ñaan dal ci ñu métti pour soo ci génnee ñu xam ne yow mii ndaanaan nga mais bëgguma di dal ci loo xamante ni boo ko daanee danaan ah loolu yóbbuñu fenn dañoo bëgg dal ci loo xamante ni danaan est-ce que sa waay tey na ci génn. bu la suñu borom génne ñu xam ne yow mii vainqueur nga ndaanaan te il est nag ma jël li ma am moom ca làmb ji dafa jot. fi mu nekk nii seen combat taxawaloon ko yomboon na wala jafe woon. ah man sama côté de mitiwul woon baat ak tontu la woon parce que lu ma mën a sama dëkk moo ma ko gënal parce que dama fay gëj a bëre di fi sama combat ak Ousa ba léegi moo tax dara boolewu ma gaay bi mooy dama leen wut leen adversaire rek ku nangoo ñëw ci sek pare naa bi bàyyi ñëwee bi nee bàyyi la dama ne leen amul problème. mooy baay <laughs> Modou Baye Mandione nga ko bëgg a def yow wala. non Baye Mandione du paa de. Baye Baye maanaam ne na ki nga daan yow ba tax ngay wax fii biir Thiès mag la muy Ousa Sow. no man Thiès sax daal ma fi Ousa kese. mais na moom Ousa la tànn comme paa. waaw mais moom Ousa la tànn moom booy la. ah waa ci moom waa Baye Mandione du mag. no xam nga booy la moom. moom booy la. waaw mais su ma ko fi daan xam daan naa fi benn booy rek. parce que daan ko yomb na nag ni nga koy waxee nii. ah waa mais moom moo ne benn paa la fi daan waaw ah, mais ak benn booy ci carton yàlla. mais benn affaire la Moodu xam nga moom yow benn paa la wax yow nga dëgg bëgg ko boole comme benn booy mais yaa gën a xam ne Baye du nangu loolu. ah mais waaw du nangu loolu mais nag bañ bañ nangu ah. incha allahu rabbi ci carton sunu borom. moom sax yegg na ba ci ne bu sañun fii ci kuuru kër gi ñu la fekk toog nii gars yi toog ak moto yi fii lañ leen di soufflé ñaar ngeen defante fi. waaye loolu day wax waaye xam nga loolu mënut <laughs> bi combat fii ci guddi moo dix combat bu ñu tëjee ci kër gi bu ñëwee moom la ñuy fekk ci suuf. da nga koo dàq bi da nga ko ëpp doole ba tax nga wax loolu. non ëpp ma ko doole. Ah, kon lu tax nga wax loolu. dàq ma koo bëree. kon nag mu ëppoo ko doole dàqoo koo bëree bëgg a war ci koom dix fois. ah baax na. Ah, am na foo ko teg. tegu ma ko fenn. gëm suma bopp ak gëm li may liggéey. mais Modou ko ëpp doole dàqoo ko bëre moom mënuñoo ubbi fekk leen si kawam fukki yoon moom. waaw baax na. moom kay danga ngay nangu ne yaa ko dàq bëre yaa doole. maa ko dàq bëre. doole. man gëm naa ni. maa doole. fit nag. non fit leneen la. ah du neex ëpp fit. non seede leen Modou Anta du ragal. ah Baye moom lu ne man nañ ko koo jiñ moom it fit ko ko fit moom Modou yomb moom. mais Modou mais Modou it mën nañ koo jiñ lu ne ba mu des daa ragal. kon de xanaa Lamine ma wax a la Papa Thier waxoon rek keroog ba booy bool bëreeg am na xam neex daan ko mu ma ñaari bukki lañu waaye njur maa nga tënge yéen ñaar ñaari gaynde ngeen le 3 dinañ xam kan mooy mbara wàcc bi. waaw le trois lañ koy xam incha allah rabi ci kàttanu sunu borom. yàlla nañu yàlla may fekkee tal ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko ànd ak wér ba le 3 ci kàttanu sunu borom. waa Leewtoo yi tëgg combat bi loo leen di wax. non waa Leewtoo moom xam nga li ma leen wax mooy di leen sant bu baax di leen gërëm parce que aw ma seen fay man Modou Anta. parce que li ma bëggoon moom lan ma defal muy ñëw tëgg ma sama dëkk te nee naa man lu ma mën a am bëri sama dëkk moom ko gënal parce que li ñuy wuti Dakar suñ ko mënee am fii dañ koy jël kon dañ leen sant rek leen ñaanal ñu sumb rek yàlla na leen suñu borom aaral boppam ba bëgg rek ñu am ko parce que ñun suñu intérêt mooy promoteur yi bari di woo ñëpp tamit ñu ñëw. sa morom bi ñu demee ci Quench am na Quench Quench seen diggante dañ ko mës a dox. man Modou Anta de boog mosuñu moom yàlla rek a tax may wax mosuñu maa wax waxi Quench waaw mais avant ko combat ak Baye Mandione di taxaw ku doxoon seen combat paroon nga pour bëre ak moom wala. non musuma musuñu moo cee wax dara. déedéet. mais bokkut ci mbër yi nga kii daal. non xam nga làmb lan wax. champion la mu ngi ci yoon di liggéey mais sama bët nag teg naa ko feneen fu dul foofu wax dëgg yàlla mais nag comme li ma waxoon sànq garab ci kaw lay fekkante saa yoon làmb boole rek dinañ bëre. Ah, làmb ji bu ma la laajoon kan moo fi dàq bëri lu ma Modou wax. kan moo man jàpp naa ne maa fi dàq bëre. foo loolu. ah bari na samay qualité man jàpp naa ne maa fi dàq bëre. waaw léegi ñi daan fu ñu féete ñoom. non nit ki ko man foofu mu daan la. yàlla mooy dogal chaque jour nit daan nit ñu naan ko nu ko daanee xam nga li may ak rëg-rëg. ah bébé jën mënut rëg-rëg. nga jëlaat leen boolewaat leen nga jëlaat leen boolewaat leen boo leen doon teg yéen ñaare foo teg boo doon yoroon sab xaalis di ko yow yaay teg ñun moom dañuy wax rek ñun kay sunu micro la ñuy yor sunu caméra di wax. waaw mais exemple bu ndaw laa la jox quoi mais dama laa posé question yow ñoom ñaar bu ñu leen tëggoon arène yow nga teg fooy teg. man daal su man daal su fu may teg ci Lutte TV laay teg rek. <laughs> waaw foofu nga nangoo teg ndax journaliste nga mais waaw loolu day won ni kon xama nit ki di nga ko man erreur bu ndaw nga def ko. parce que ku seetaan ñoom seen bëre xam ne erreur am yi xam nga li muy erreur day am bu erreur amul jël du am loolu moom moo fi nekk. fit nag kan moo këpp ci làmb ji. ah non bëri nag ñi ci am fit bëri nan est am na ci ay ragal. am na ci ay ragal kay